parce que tamit tamit il faut que ñu bàyyi naan avion bi xoolal maa non non man côté bi muy wax bàyyi wax avion de mais dama la transport laay wax transport laay wax tey jii le BRT bi nga xam ne projet la buy ñëw bu ñëwee moo ñu gën a cher téeméer junni yoon waaw ah ah on verra non ah. non on verra ba mu ñëw ah non non déjà les tarifs moom nañ ba tarif yi benn tubaab moo ko exploité loolu ñu duñ ko nangu ñun Sénégalais yi doo leen ko nangu déedéet hmm. parce que état du Sénégal mënul financer un projet cent pour cent ba pare jox euh, jox ko tubaab mu koy mu koy mu koy mu koy. kan moo ko war euh, mais au début du projet ñun la waxoon ñun en tant que AFTU. ak ah, ah, ak Dakar Dem ñun ñoo ko exploité. Mm-hmm. Mm-hmm. au début la ñu wax. Mm-hmm. yóbbuñu mission deux fois Nigéria ak Afrique du Sud. ba ñoom yaay bi ñu génn ci signé ak benn tubaab. Hmm. loolu def naa ko défense je l'ai défendu dans les dans les loolu duñ ko nangu jamais. loolu pré président déggaat ko encore ñu waxaat ko duñ nangu un tubaab man ñu tere en tant que autant urbaine à Dakar ñu jox ko benn tubaab mu di ko exploité loolu fan la am c'est ce qui bi kon am na problème déjà benn société étrangère moo nar a le TER hmm? loolu duñ ko nangu loolu moom béy ba mu leer xam nga duñ ko nangu dafa yomb mais est-ce que vous êtes en mesure yéen tamit mais euh, euh, fi dagg diggéey loolu ak gérer ce qui est tout ce qui est logistique ah yéen da bëgg BRT bu ñëwee ñu ngi koy def mais mais Sénégal. Euh, ñu réseau bi ñuy gérer xam nga ñaata véhicule la. gouvernement bi deux mille et quelques véhicules. gouvernement mën na ko dénk une société étrangère pour mu gérer ko juste le. mais pourquoi une société étrangère avec toutes les compétences qui sont au Sénégal mais soyons logiques société étrangère boobu c'est oh, vrai le fait que gouvernement moo leen envoyé woon en mission. gouvernement moo leen envoyé woon en mission pour ngeen xool. on était ensemble avec tous les tous les Nigéria premier en premier lieu ay ñu dem Afrique Sud d'ailleurs le pro bi ñu def nii. mooy bi nekk Afrique Sud. oui c'est c'est le choix bi mission bi mission bi ngeen demoon pour pour prototype boobu ngay wax BRT on a vu que. dafa commencé bëri ay coow te demaguñu fenn parce que chauffeur yi dañuy wax ne BRT jour bu paree dootuñu am fu ñu jaar il suffira que benn oto panne foofu laa jëm si kenn du jàll sur les lignes yi xam ne ligne publique la nekk ñi nekk à côté ça normal aussi fu ñu dem Afrique du bu ñu demee deux fois deux voies la nekk. day les lignes parallèles ah. waaw parce que xam nga ñoom li ñu leen tërir avec les études dañ ne une concurrence au BRT que BRT daw fii ñun ñu daw fii c'est fait concurrence lay nekk. Hmm. BRT moo ñu concurrence wala ñu ñoo ko moom moo moo ñëw. moom moo ñu concurrencé. donc Sénégal am na problème te loolu. bravo loolu duñ ko nangu.